tey ah. voilà. Euh, comme ça suñu deuxième partie ñu ngi koy consacré essentiellement ci wàllu politique yéen a ngi jógee ci élection locale ngeen amoon benn déroute bien que def ngeen des efforts comme ni ñu koy waxee mais ñu ngi jëm ci législative fi ñu toll nii mooy euh, wàllub euh, investiture yi ñu gis nii ku nekk ñu ngi xëcc jëmale sa bopp te général bu ngeen jógee ci investiture seen parti bi day faral di yëngu yow ci sa xam-xam bu bees gars yi ñu war a procéder. ndax jàpp nga ni après audience bi dafa calmer les ardeurs pour que ku nekk dem liggéey fàtte affaire audience bi tey boo doon lancer appel à l'endroit de tes camarades loo leen wax. jërëjëf Babacar ñu ngi lay nuyu di la di la sant di gërëm donc nga poser question boo xam ne question bu am solo la mooy taxawaayu benn bokk yaakaar ci département de Mbacké rawatina fii ci commune Touba. comme ni nga ko waxee léegi nag yaakaar naa ne fan yi weesu am na ci benn événement politique bu am solo boo xam ne xew na fi. mooy président de la république son excellence monsieur Macky Sall président de la coalition benn Bokk Yaakaar recevoir euh, département de Mbacké comme ni muy recevoir tamit euh, yeneen département yi nga xam ne moo nekk ci réew mépp waaye ñun suñu bopp dafa xaw a particulier ndax euh, depuis longtemps ñi ngi ko doon sàkku te yàlla dogal na ko comme ni mu ko waxee keroog yàlla mi ko doon door a dogal mu doon loo xam ne lu am solo la mooy département bi dans toutes ses mooy waa Touba waa Mbacké waa Mondial bi ñëpp ñi nga xam ne mën nañoo ñëw te ñu tànn leen ñëw nañu représenté ñi nga xam ne ñëwuñu ñu jàkkaarloog son excellence monsieur le président de la république donc di président Benno Bokk Yaakaar mu waxtaan ak ñun dégluñu ndajam nag lu am solo la ndaxte finalité bi rek mooy mu ñëw dégluñu ñu wax ko lan moo yan stratégie la ñu mettre en œuvre pour mën a gagner département bi yaakaar naa ne ba ñu fa jógee eh, stratégie yi génn na xalaat yi génn na tënk nañ ko donc ña fa teewoon xam nañ ko bu ñëwee wàcce nañ ko ci base bi je pense que fan yi gis ngeen mm, nu mu tudd zone yi kenn ku nekk di daje donc di pour jëmmal donc orientation yooyu nga xam ne nii président génne woon na ko ci ndaje moomu. donc tey jii rek je pense que ñun suñu zone zone daaru mën naan bi eh, tey danañ daje pour def ci ay xalaat loolu nag liñ ci war a jàngee leen dong la mooy. Euh, dañoo jëm ci ay élections yu am solo jëmit ndaje ma euh, ñi nga xam ne ki dem amul solo ki toog amul solo ki dem demal na ki demut ba ñu demee ca ndaje ma ka wax amul solo ka waxut amul solo ka wax waxal na ki nga xam ne nii waxul donc kon c'est pas euh, un problème de personne c'est un problème de principe ak la ñuy wax mu jariñ coalition bi jariñ président de la république fii ci département bi ndax mu man koo permettre élection yi ñu jëm ñu am ndam kon bu ñu fa jugee li ci war a topp rek mooy am nañu ko tàmbali mooy ñu tàmbali nag xool yan stratégie la ñu mettre ànd yooyu ñu wax nu ñu koy jëmmalee ba tax na élection yii di ñëw ñu mën ci am ndam loo xam ne nii donc mosuñu ko am te loolu nag dafay dàq wax dëgg yàlla ak yenn yenn yenn débat yi xam ne nii ndax politique ak débat ñoo ànd dëgg la politique ak euh, débat comme ni ko ñoo ànd mais am na xoon bu fa tollee nag dañ koy wàññi tuuti yi yenn détails yi nga xam ne amul solo euh, te jublu nag ci l'essentiel l'essentiel mooy fas yéene doon benn les responsables d'abord te loolu joxante nañ loxo keroog li nga xam ne moo xew devant le président la république lu sedd xol la mooy tous les donc mu engagé wu pour ànd liggéey te loolu manqué woon nañu déjà ci ci joŋante yi ñu weesu euh, donc euh, la composante jeune également. ñu tënees ñoom tamit joxante nañ loxo ñu ànd liggéey je pense que c'est les retrouvailles de la grande famille donc euh, de la coalition Benno Bokk Yaakaar et de ses alliés ñëpp la main dans la main ñu fas yéene loolu laa jàpp moo gën Euh, euh, am solo ak liggéey bi nga xam ne moom lañu def ci terrain bi que ne chaque jour ñuy dugg ci yenn détails yi nga xam ni diw moo demoon diw lii la fa waxoon diw waxu fa nanga daf ñu tardeel te loolu amul solo te jàpp naa tout moo monde est conscient ne ce qui nous reste actuellement c'est faire beaucoup le terrain et ñu wàññi wax ji tuuti. les zones ngeen bëgg suuxat jaare fa liggéey fa te zones yooyu noonu utiliser ngeen ko trois fois mais amul njariñ muy législative 2007 muy. présidentielle 2019 ak local 2022. est ce que législative 2022 du ngeen xool beneen procédé moo gën. non y' a pas autre procédé. parce que zone yi jox nañu résultat yi ñu soxla woon parce que zone yi ku ne xam na ne Touba dafa rëy donc c' est la deuxième commune actuellement du Sénégal après Dakar te euh, ni ñu ko donc c' est du point de vue organisationnel. ndax euh, zone li tax ñu dagg ko mooy Touba rëy gi mu rëy te zone yi day gën a tax ñu gën a jege suñuy population gën a jege suñuy militant te loolu moo taxoon ñu indi ko te loolu gis nañ ci ay résultat ndaxte zone bu ci nekk lañ ko sant ci liggéey ci élection bu nekk ma nga ko doon def bañ am ci lu kaye suñu jot élection yi weesu li ñu gagné bëriwul tëréwul nag foog ñu làbbaliwaat fas wi pour que ñu mën a gañ mais zone yi moom en tant que tel wax dëgg yàlla benn euh, procédé la boo xam ne nii donc duñ ko bàyyi ndax gis nañ ci njariñ li c'est pas parce que zone yi am nañ fi rek dañuy perte déedéet c'est pas ça keroog diagnostiqué nañ lan moo tax ñu jàpp ne bu ñu bu ñu buñ buñ ko defee danañ gagné diagnostiqué nañ ko xam nañ ko président jox na ay orientation bu lu wax waaye danañ mais comme ça les zones servent plus les militants de responsables que la masse. parce que dangay ngay dëkk si koñ doo xam zone bi te pourtant zone yooyu noonu day am ay fonds fonds yooyu dañu ko dugalaat si wala ñenn ñu ngi ko dugalaat si askan wi mais c'est juste ñoom ñoo koy téye pour am xaalis loolu tamit c'est un vrai problème. non loolu xalaat la rek euh, loolu sa xalaat la mais demeewul noonu zone yi encore une fois plus. loo gis comme ni ñuy waxee une une gouvernance euh, de proximité. ñun noonu la ñu def une gestion de proximité zone yi loolu mooy seen rôle te loolu aussi moo ñu permettre élection yu ci nekk su mooy ñëwee ñu tas ko ci zone yi à leur tour ñu tasaat ko ci seen responsable mu wàccaat ci biir militants yi wàcc ci biir askan wi. zone yi amuñu vocation pour ne ñoom dañuy ñëw di def ay projet ak programme du rôle zone yi. zone yi mooy dañuy fexe ba parti bi ñu mën ko organiser donc structure yi ni muy doxee moo ko organiser donc mu am structure des jeunes structure des femmes ñu wàcc ko ci suuf pour ñu gën a mën a def du point de vue organisationnel et du point de vue stratégique nu ñu mën a doxalee suñu activité mais néewu ne zone ba lañ naan ko demal nga defari potelampe demal nga jàppale jeunes yi sàngam c'est par la vocation de la zone loolu rôle la boo xam ne nii donc euh, état du Sénégal moom ko moo ko war a def te lim ci def ku ne technique ba ndax li président def Touba wax dëgg yàlla loolu moom lu ne fànn kenn du ko jeex lim benn président bu su ko def donc de ce point de mais mais les zones par exemple ça peut freiner les efforts des des autres boo xoolee su mel ne exemple un certain Aliou Sylla mu dëkk Madiana am fii Darou Manane ay militants bu ñëwee si zone bi waa zone bi dañuy mer dañuy jàpp ni dañoo dafa ñëw seen territoire. loolu tamit inconvénient wu zone yi la. non non non xam nga lu tax man wax dëgg yàlla man ci élection yu weesu man j'étais hors zone benn nag nit koo gis euh, dafa am fu ñuy féetale. donc daaru mën naa la rek daaru mën naa lañ ma féetali mais man yaakaar naa ne liggéey bi ma def ci élection yi weesu c'est dans tout le département de Mbacké te musuma am fenn fu ma dem ba ne ma doo fi dugg def naa fi ay ay ay ay réunion yu ma ay ay ndaje yu ma ànd ak honorable député Sadag ànd ko ñeneen ak ñeneen mu dalal ma donc ñu waxtaan am fa ay ndaje yu am solo def naa ko également ci zone yu bëri def naa ko tamit à travers le département donc ce problème là ne se pose pas parce que ñoo bokk fu ñuy fu ñu rootee fan nañu rootee ci ñoo bokk fu ñuy rootee waaye tamit ñoo bokk fu ñu sotti fan nañu sotti mooy ci ndaalu benn bokk yaakaar fan nañu ñu sotti ci ndaalu président de la république élection yi moom moo soxla donc ginnaaw moo soxla nag ñun ñëpp dañuy fàtte suñu bopp def don de soi moo doon am solo suñu jëmm yi amul solo nañ jël jëmm yi jaay ko parti bi li tax ma di ko wax mooy ñii laa mel ñii laa toll amul solo nañu nawlante respectante te xam ne moo ñu mën a tax ñu ñu am ndam te loolu maa ngi koy gis ne wax dëgg yàlla ñi ngi ci yoon wi. yow dañ koy làbbali mu gën a baax rek. dans le dans boobu noonu euh, ñi koy appliqué jàppoon ni c'est l'opposition particulièrement le Pastef parce que boo xoolee seen i gafaka la ñuy jël di jàppale askan wi fii à Touba ñu ngi def du social ñu ngi def yeneen ak yeneen te ñoom amuñu moyen te alors que yéen yor les moyens ba pare population du leen di déglu ñoom lañu gën a déglu. jàppoon ni kon population bi mën leen tamit changé waat doxalin seen diggante ak ñoom parce que may la woteel ma daf may nan da nga may corrompre achat de conscience boobu nekk si côté nguur sax ci wàllu passé boobu nga wax ne dañuy def euh, don de soi dañuy parce que ñooñu euh, damay fàttali nag ne dañoo am benn leader boo xam ne dafa am lu mu waxoon ne donc dafay ñëw pour combattre le système nee na système bi pour maa ngi ñëw sa question de dégg nga nee na système bi. mooy euh, ay façon de faire ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci système bi depuis les indépendances mu teg ci ne ànd ak ñoom bu bis bu naree ànd ak ñoom mooy keroog bàyyi na politique. nee na su ma ànd ak PS su ma naree ànd ak PDS su ma naree ànd ak ñooñu bàyyi naa politique ndax loolu moo nekk la base de son engagement politique tey ñu gis ko wax dëgg yàlla de la pire de manières mu dugg ci alliance boo xam ne nii donc li ci njëkk mooy nemmeeku tour bi mu defoon ci eh, les événements bi mu passé dem seeti leader yi nga xam ne ci opposition classique lañ nekk donc muy benn ñaareel aussi mu ñëw def yeewi askan wi ànd ak nga xam ne lépp c'était c'était parti d'opposition classique donc système bi ñëw na anti système bi ñëw na fekk ci système bi ñu continuer mu ñëw defaat benn alliance boo xam ne parce que yeewi askan wi la ak wàllu Sénégal bi nga xam ne dane woon ne doom ji dañ ko waroon a fusiller kon kooko noonu la mu waxoon lépp ci engagement politique am ne noonu la bëggee jël nguur gi weddi na ko tey waa Touba xam nañ ne nit la koo xam ne nii lu mu wax du ko def encore une fois de plus ndax lam leen waxoon ne du ànd ak kenn ci waa système bi tey ji mi ngi ci biir système bi di def li waa système bi di def parce que ñoom ñi ngay xuloo actuellement ay poste dañ ne woon askan wee leen ñor mais tey ñoom neen les leaders de la conférence xamal nu mu tuddee da yeewi askan wi ñoom ñooy naqarlu ne ne position yi ñu teg baaxul kon ñoom ci boppam ña nga ca ña ngay def système boo xam ne sax moo yées système bi fi nekkoon kon kooku nag bu ñëwee di présenté ci Touba loo xam ne ni waa Touba dañ koy xam nañ ko l'homme politique et son parti actuellement sont démystifiés par la population xam nañu ne la ñu waxoon dañuy nax ku mel noonu nag soo ko joxee nguur ga lépp lu la waxoon xam nga ne du doo ci gis dara muy benn ñaareel ba état Sénégal état mënoo ko tëkkale mukk ab ab parti politique ñoom la ñu def ci ñoomu neen la je vous mon exemple ma jox la exemple li nga xam ne état politique de développement communautaire équité sociale bi nga xam ne mi ngi koy def à travers les bourses familiales j'en passe la carte d'égalité des chances li ci Touba am néew na ko ci am ci politique yëpp kon foofu noonu c'est pas il faut pas comparer ce qui est comparable li ci des mooy don de soi am na ci ay responsable yu nekk fii ci parti boo xam ne lépp lu ñuy liggéey danañ ci géem seen kattan ba def loo xam ne nii ci président ci président lañ ko jëlee def ko ci biir nit ñi muy y a des hommes yi nga xam ne ni social la ñeen xamee fii mën nga cee tudd ñu bëree bëree bëree bëri bu sama jëmm jee ci gën tuuti bëri na fi ñoo xam ne donc euh, ils ne font que dans le social te loolu yaakaar naa ne ñëpp gis nañ su mbënd mi amee ci courant yi ci ndox yi ak ci leneen ñu dem au sommet de population ak ci weeru koor jotee kon nekkul ne apanage bu parti Pastef te ñun gisuñ ñoom ñu koy def xanaa seen bopp pour nañ ko disee ci jëndal seen leader ab daamar nañ ko disee jëndal ko nangam te koo xam ne li mu am ñoom amuñu ko ndax moo ne woon mun ta fay mënut a fay donc euh, salon de massage ba tey ñu gis ko mu ne woon donc moom. benn dossier rek ah au même en même temps benn dossier bi muy liggéey mën na cee dund ay ati at tey donc kooku la ñuy jël di ko fayal mais par la population encore une fois. voilà bu nu ñu jeexalee xanaa si wàllum seen euh, investiture yi. gars yi ñu ngi def ay pronostic rek am na nag ay profil yu bëri ko mais koo si rek bàyyi moroom man day indi problème parce que Touba moo bind noonu te APR noonu la juddoo si tiraillement si jafe-jafe ay këral intestine ay tendance ay kii du ma jiite beaucoup de responsables armée mexicaine kenn jiitewu leen voilà yooyu noonu daf leen topp ba léegi nii président wax na leen si zone yi liggéey. mais solution amagul jàppoo leen ne bu liste bi génnee coow yi day a bare. déedéet déedéet sax mais bala ma ñëw ci liste bi damay wax rek ne ñoom waa investiture waa waa opposition bi seen investiture yi je pense que def na ay dégâts fii ne ñu ngi woon nag di tàllal loxo. donc ñëpp ñi nga xam ne gisuñ seen bopp ci boobu boobu coalition ndax dañ leen a trahir lañ ko tuddee donc euh, sunu sunu nattangoo yi nga xam ne ñoo doon jàmmarloo ak ñoom ci élection yi vraiment ñi ngi leen tàllal loxo ne la bonne liste ki nga xam ne waxuma sax la bonne liste mais dama ko weesu ki nga xam ne nii moom moo defar Sénégal mais surtout defar Touba defar fi ay programme yoo xam ne ki se chiffre à des centaines de milliards ñi ngi leen tàllal loxo ñëw ànd liggéey pour gën a mën a defaraat Touba gi biir Touba yi nga xam ne ñoo ko bokk te mënuñu ko séddoo ñun ñëpp loolu aussi dama koy lancer muy un message li des nag mooy ci wàllu liste yooyu ñun on n'a pas de problème de liste ki ji nit list bi mooy kan moo jiitu waaye sa concerne tout le monde dans un premier temps c'est des élections à caractère national du local mooy c'est des élections à enjeu crucial pour la coalition Benno Bokk Yaakaar mu intervenir à mi-mandat ndax li ñu ba baaxoon a gis mooy élection présidentielle saa yu jàllee rek quelque temps après euh, aussitôt après dañ ci teg élection législative bi paa nag c'est à mi-mandat mooy wane ne donc ñun li ñu bëgg mooy may président de la république euh, majorité boo xam ne li nga xam ne tàmbali na ko pour Sénégal tàmbali ko également pour Touba muy loo xam ne ñëpp teg nañ seen bët mu mën koo continuer de ce point de vue là on n'a pas un problème d'homme li ci am solo mooy orientation yi nga xam ne son excellence monsieur le président de la république décliné ko wax nañu ko mu ñun ci loolu la jaar kon nag euh, kii mooy jiite kii moo nekk ci liste bi amut solo. xam lan moo am solo ñooñu dañ leen jiital waaye c'est un combat général c'est un combat qui concerne donc toutes tous les partis de la coalition benn et la grande majorité présidentielle ku ñu jiital danañ ànd ñoom la ma waxoon nag ci élection locale rek lay waxaat fii man j'ai pas de problème par rapport à ça ku ñu jiital maa nga ca ginnaawam nekkuma ci ginnaawam ci ginnaaw président de la république la la nekk te ginnaaw moom lañ jiital stratégie yi nga xam ne moom la ñu dégager ci biir euh, coalition bi ñun ñëpp koy bokk ànd ki ñëpp nañu nangu ne ab mbooloo fopp ñëpp mënuñoo jiite ab mbooloo ñëpp mënuñoo nekk ca kaw de ab ñoo xam ne dañu leen di tànn te kii tànn xam na li tax muy tànn il est le informé am na ay ay stratégie yu mu déroulé donc paaka kenn du ko jiitu ci mbaram te nit ki doo ko jiital pare di ko tal mu def ba pare nga ne ko nii nga waroon defee te lam xam ci information lam am amoo ko lam xam ci stratégie xamoo ko donc da ngay da ànd nangu ca la mu dogal ba pare aller vers l' essentiel. ces querelles là ne nous intéresse pas et ça nous retardé su liste yi génnee xaw ma kañ lay génn man man wax dëgg yàlla je me focalise pas sur les listes te yaakaar naa ne responsable bi fa lañ taxaw militant a taxaw focaliser wuñ ci ni ñuy def mooy yan stratégie la ñuy la ñuy def ñu gën ñoo dooleel c'est extrêmement important renforcer le parti dans à Touba renforcer ko dans le département pour que cette fois-ci ñu gagner les élections au la mer donc on n'a pas de problème de de de liste. mais tamit vous boo xamante ni moo leen gagné woon. et puis le problème de Touba c'est la population bi nga war moo war voté est-ce que ñoom seen message ñoom percevoir nañ ko parce que damay wax ni population Touba vraiment ils ne sont pas en phase avec le régime en place la preuve mooy chaque fois ngeen am déception wala surprise jotul ngeen changé waat doxalin ci ni ngeen di politiquer pour ñu mën xam leen indi seen programme. xam nga déjà population Touba mérewuñu président Macky Sall au contraire du ñu mën a def lu bëgg ci moom ndax ki nga xam ne fekk na la fa jox la hôpital boo xam ne nii nga doon dem di jéggaani di ko wuti feneen maa ngi ñëw ma yeggale tuuti mu jox la ko ki nga xam ne nii donc sur le plan social mi ngi def ay programmes yoo xam teg nga ci ki nga xam ne sur le plan sécuritaire mi ngi def loo xam ne tamit teg nga ci sa bët sur sur le plan de dans le domaine des inond de la gestion des inondations ak yeneen ak yeneen j'en passe mu des programme de développement économique social fan yi ñi ngi bëgg a lancer benn plateforme industrielle euh, internationale boo xam ne nii mi ngi war a recruter pas moins de cent cinquante mille emplois fan lañ koy def Touba. ndax dëkk commercial la dëgg la waaye tamit mm, al emploi des jeunes donc dafay ñëw renforcer ku mel noonu population mënu ko mere xam nga lan la li nga wax da ci am mooy il faut la il faudra que l'on change un peu d'approche approche bi ñun xam nañu ne président liggéey na nañu dem ci population mu wax leen les réalisations du président bi benn ñaareel ba il faut déconstruire benn ay benn ay xalaat yoo xam ne ay ay ay nit yoo xam ne ni teguñ ko ci diine indi nañ ko muy affaire euh, homosexualité bi danañuy dem ci ñañ war dem waxtaan ñoom ndax loolu amul mus sa am te du am Sénégal ba ilaa yu mi din ay julit lañu ay taalibe lañu dañ ko ànd ci loo xam ne ni dafay am ndax bañ ko waxee ba tey ji musuñ koo gis yàq leen tax a jóg te te encore ñi nga xam ne ñoo ko doon wax ñu ci bëri sax da ngay gis ne da ngay ñu ne la yàq ñu jóg waaye la wax teguñ ko fenn muy benn ñaareel ba également mooy la politique territoriale et sociale ñu gën ko dund doo ay joyanti lay doon joyanti yooyu bu ñu ko defee boole ko nag avec euh, li may faral di wax ne avoir un discours qui euh, qui sera conforme à la ville sainte de Touba politique euh, wolof dane aaday réew du aaday réew Touba boo fi def politique également ce discours da nga koy méngale ak dëkk bi lu mu laaj def ko ci yar def ko ci teggin def ko ci li nga xam ne nii mooy war may dëkk bi lu ñu ci man ñi ngi ñi ngi ci de waaye danañ ko gën a dolli ba nga xam ne nii population bi danañ xam ne ñun ñoom lañu fi nekkal tey nag di wax ne présidentielle à élection locale élection locale taux de participation bi day faible c'est normal c'est dans tous les pays du monde et ici au Sénégal également élection présidentielle yi weesu 67 000 voix lañ président yaakaar naa ne mu joué woon rôle au niveau national population Touba ils sont avec le président Macky Sall et on fera en sorte que euh, les campagnes de diabolisation les campagnes de manipulation et de désinformation ne puissent pas entacher évidemment euh, ñun foofu la ñu jëm ci loolu la ñu nekk merci beaucoup waa di sant di gërëm rek di lancer message bu am solo donc un message de cohésion un un message d'unité ñëw des cœurs. donc euh, tous les membres de la coalition benn boo ko yaakaar ñu joxante loxo la main dans la main pour ñu mën a gagner élection yii di ñëw te ñu def nag une démarche et une gestion inclusive ñi nga xam ne ñoo ci ñoo ci war a bokk ci mbir mi ñu leen ci boole ñi nga xam ne tamit ñoom lañu war a yëgal ñu leen di yëgal bu ñu ko defee je pense que di jugandoo di dóoróor am ce qu'on appelle une convergence de vue une convergence d'action euh, élection yi ñëw danañ ko d'autant plus que on a en face de nous opposition boo xam ne wax dëgg yàlla gagné leen ci département bi yomb na